waaw 5 tonnes moom loo ci mën a dégg xaalisam day dem ndax ñetti avertissement dañ lay dagg xaalis Ndiaye laax xeex na moom ñu ngay xeex de waaw bu ngeen bëggee daanante xeex leen xeex leen na saf voilà waa dégg nga waa stade bépp di yuuxu waaye bu ngeen defee yëfi góor kay gaa yi kontaan wala du noonu. ndax xeex bi du soob Babacar. waaw man soob ndax buñ delluwaatee fee day. door pour wut waaw parce que door songu yombul. mbër yi ko xam. mbër war nga boo xeexee. nga war songu. ni bu ba nii la dóor pour wut buntu la. waajaay dóor koy wute ci làmb nag làmb bi waaye xeex bi jarul yoon. waaw parce que boo xoolee ñoom ñaar xeex nañ ca kaw rek mais kan est ce que bi ngay xeex yaa ngi contrôler sa morom tànkam bi fan la ko teg bu ma ko songee ndax dinaa ko am loolu lépp da nga koy jàng balaa ngay maanaam loolu yuy jàng la bëri jeu la. nañ ca la ñu newoon waaw parce que lii buñ ci delloo ñoom ñaar li ñuy defante du bëri li fiy feeñ du neex de kii cinq 5 am na trois avertissement Ndiaye Lakh am deux Bourguel ana sama gilet Bourguel ah, Yatma Yatma fi nga Baye Ndiaye laax ak 5 mi waay laax bi daa mel ni tàngul tonnes yi daa mel ni diisul mbaa du tonnes yi witteen Baye Balla doy doy na waar non dinaa dem yow xam nga ma yow itam ah laay lay la laa Ndiaye laaxa moom moo la wan ginnaaw. Ndiaye laaxa gàllankoor. 5 tonnes ka sangoo woon gàllankoor jarom point Sandaga waaye gàllankoor gi daal defagul effet. wallaay loolu am bàyyi bala mbuub moo féete gos léegi. rond point fa la dem sangoo fa butéel. ma ne ko sa gàllaaj ji xanaa defagul effet. Ah, rond-point Sandaga ak na mu yaatoo. ak na mu yaatoo ak na mu siiwee. Ah. addina bi yëpp a ko xam. nga yor say butéel di ko fa sangoo. xam naa bu dee bës a ci bëggoon daan na ko. waaye bësub daan nag defe naa moo dàq. waaye daan ngay coow li. nga combat bii day waxaaleeg moom gis nga permax xam na ne mbërëm am avantage ci avertissement léegi da koy gérer loo combat am Habib yeewu la def permax xool Papa Sow ca angal ba Papa Sow nga ngay dugg ca géew ba Papa ngay dugg noona ca géew ba Abdou Aziz Aziz li nga so rafet na Papa ngoo nga ca biir géew ba Ndaama laa ngongu ca biir géew ba doomu Parcelles Assainies Papa Sow cey bii combat digganteem ak Siteu am na ku koy sotti butéel góor a soog ñëw taxaw Papa Sow am na ku koy sotti butéel ay bii combat papa ngay yëngu ji jaayu ndànk waaw waaw yaa dégg loolu Habib gis nga papa yooyu lay def ak yeneen sa digganteeg tarkinaa bi tey dara du yomb bekkaay sa bëre bu mu mel ni bëre biir ba xool ma Papa Sow xool Papa Sow mu nga ca géew ba taxaw ba tey lu muy xaar Papa Habib lu Papa di xaar mu ngay dem Papa ngay génn Papa Sow ngay génn géew ba ànd ak góor a sok ak borom jàlla bi ba ñu nga ngoon ñu dem Habib Banda déedéet ay njaay laax sa bi xanaa daa tàngul cinq tonnes xanaa tonnes yi daa diisul xeex tey jii làmb arène nationale de tey li ne ci buntu beeg li ci biir yaakaaruma mu xaj fi mu ngi koy dóor eh Ndiaye la xam koy dàq cinq foo jëm Ndiaye dina ko dóor mu daanu Ndiaye a koy dóor xeex Ndiaye eh, cinq tonnes cinq tonnes foo jëm cinq mbaa kaw a ay cinq mbaa du witteen tonnes ya diisatul de eh Ndiaye kàllooji na cinq tonnes ay kàllooji yu méttee méttee méttee ay Habib lii bu daloon waaye yii kàllooji waay Maguette Seck Njaay laax laay lay la Njaay laax koy ñam de waaye Siteu esat baa ngi yëngu de waa mais xool waa waa waa jàmm gën yi xoolal waa jàmm gën yi waa xool tarkindaa yi xoolal waa jàmm gën eh waa mais mais lii lan xoolal lii xoolal lii Habib waa waay mais xanaa Siteu waa ana waa lii lu xew ay waay Siteu mii Siteu li nga def tey arène nationale waa mais ay eh, eh, na ko ndombo war na ko ndombo ay waay cinq tonnes waay cinq tonnes daanu na Njaay laax war na ko ndombo cinq jógal ñibbi angi la yee waa waaw waaw bi xanaa yéen a ko ñooy borom. lamb ji c'est la première fois ñëw. dañ koy tëj bi ñooy ñëwaat borom. door mu toog. dañ koy door mu wàcc. lamb ñoo ko moom barki Serigne Ba la door mu daal. waaw ah, stade ñoo ko moom Babacar. groupe lamb yëpp. xam nañ nu mu demee. wax dëgg yàlla non Siteu. taal bi yàlla taal la. nangu teel ko nangul. wax dëgg yàlla ndam rek a ko am lu bi lu leer naa lay waxal Papa Sow nagu seeraas la ñaaw dee rafet dee yàgg suuf par force mun si dara nagu seeraas la day dee waa Siteu mi tey gëdd na ko eh foo jëm yëngu nañ Mansour tarkindaa yi yëngu nañu o popo noonu yëngal stade bi Mansour di nga ne Pape suuf lan la jëlal tànk o peesun Bécaye daan na Pape Sow Bécaye daan na Pape Sow Bécaye daan na daan na Pape Sow ñu ca géew ba sukku na am na lu muy suul mu ngay gas abib Siteu ngay gas dugal na loxo ba ca suuf mu ngay wàqi suul na ko ndax day raxas wala déet léegi day jóg day jóg sotti nañ fa ndox mu ngay wër la mu suul mu ngay wër la mu suul mu ngay wër la mu suul aa ah, Siteu mii day tey na cosaan de daa mel ni mu dem Habib la yàlla ko may. déggal stade bi ni muy def. waaye trompe rek la sànni rek nga ca géew ba ñoom. jàppante ba yàgg na de trompeur moytul dañ lay zongule bañ na xale bu mën a bëreel trompeur moomu waaye la sa bañ jàpp jàpp na bañ a bàyyi daa njool bañ na loolu trompeur moytul zongule mu bañ cey waa jàmm gën yi Lassane koy dóor lasta bañ na de songule na ko da koy daan daan na ko daanoogul de xale ba daanoogul daanu na lasta ndeen daan na trompeur songule yokk booy kii moo la mag bëre moo la mag bëre lasta lu muy wax lasta lu muy wax lasta ko mag bëre ah waaw maa ngi jóg. Siteu mënta bëre boo bëggee dégg-dëgg xaw ma nag léegi seen seen arbitre yi ban décision la ñuy jël parce que Malick Ngom ngi nele waaw mu nga noonee ak ki nga xam ne moo leen jiite arbitre frappe yi muy Babacar Diop moo sol cap noonu Malick ngoom moo jiite les arbitres yi yore simple mi yaakaar naa léegi nag dinañ jël décision ndax Papa Sow mën naa bëre si wala mënta bëre si waaye Papa Sow même a gis ak la mu génn ci deret yaakaar mën naa taxaw di bëree Siteu nag moom actuellement mu ngongu ci géew bi waaw mu ngongu ci biir géew bi kaay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 kon nag mbokk yi dimanche 19 décembre arène national système pay-per-view fukki combat benn takkusaan Tapha Tine takk ci rip Boy Niang numéro 2 le Chapachoni Tidiane Faye le professeur de Lansar ak Alioune Seye ak yeneen juróom-ñetti combat pay per rek ngeen ko mën a seetaan ci 3W point lambdiaspora